commission bu ñu dénk restauration mu war a saytu bernde yi nga xamante ni ni moo jëm si ci résidence Seexul Xadim bi ak ba ca daru Marnaan muy ganu kilifa diine yi nga xamante ni ñoo bokk ci turux suufiye yi nekk ci biir réew mi ak association yi nga xamante ni ñoo yëngu ci wàllu lislaam tey teewee si ñoo ñu lañ yor seetu toppatoo amaat itam ab commission hébergement nga xam ne service yi activités yi laaj ci biir kër gi ñoom ñoo koy saytu amaati benn sous commission bu ñu tudde sécurité moom itam ngir gan ñi fi ñu dal ñu mën leen di saytu ba seeni bagage du tasaaroo ku bokkut ci ñoom itam du leen rax yooyu mooy yi yor ak intendance nga xam ni bagage bi ñu yor itam loxo yi mi nekk ba man koo faa jële yóbbu ko ci barab yi mu jëm te du suut fenn moom itam nekk na ci biir loolu lañ ñu dénkoon ci wàllu organisation bi ak organiser cérémonie officielle bi ak yenn activité yoo xamante ni danay am ci biir mel ni conférence bi raw du def ca tolle ak it beneen conférence de boo xamante ni waa communication danañ koy def lu jëm ci wàllu organisation bi. yooyu gàllankoor yi moom xëy naa du du bari. Eh, ndax lu tax du bari mooy da du tudd gàllankoor mooy mbooloo moom boo leen di saytu da ngay fexe ba kenn ku ci nekk toog place am xëy na léeg gàllankoor mën na caa juddoo mooy ñenn ci ñoo xamante xëy na dañuy xuuse ba duñ xam seen place waaye da nga mën a jëflante ñoom ci teggin ba fi ñu war a yem ñu yem fa ndax da nga xam ne xërug murita leen jàpp rek waaye teewut kenn ku nekk am na wàccuwaay dañuy fexe ba kenn ku ne ñu jox ko wàccuwaay bi mu am taseel da ngay jàpp ni da ngaa tase sa liggéey rek ngir war koo def kon du du jafe-jafe waaye bëgg yëf yi aw aw yoon la waaye jàpp ma ni beneen gàllankoor mën na mën na caa am ndax ñi ñëw ñëwuñu pour saboter yow mii jógit da jóg pour defar te mbir la moo xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk alal yoon wi la yoon wi lañ ko téyal kon nun nooy am melokaan woo xamante ni ku ñëw danañ la mën a maîtriser ba nga jaar fi ñu bëgg te coow du am loolu rek moom lan lay doon. li nga wax sànq laaj na personnel bu baree bëri bu ci dugal seen loxo ñoo ñu fan la ñuy jóge waaw personnel boobu itam ci biir comité boobu yi dañ koo séq ak waa Muxaddamatul ma ak waa Wilaya Muxaddamatul Xidma mooy kuréel gi nga xamante ni ñoom lañ dénk lu jëm ci saytu jumaay Tuubaa ji ak barab yeeg li ko wër. wilaya bokk ci benn fédération boo xamante ne ni fédération bu mag la ñu fédération des groupements religieux et culturels des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba aju ci fukki section ak ñett ñoo xamante ne ni fukki régions yi ak ñeent ci biir Sénégal fenn fu ci nekk am nañ fay ay cellule de base foofu yi ci section yooyu ci lañ dem jëli ci ay nit parce que Touba mbir mi xewe waa Touba danañ ci am ñooy bokk ci responsable yi ko jiite ndax ñoo gën a miin dëkk bi parce que fi lañ dëkk bu ko defee nag yeneen section yi ci des li ëpp ci mbooloo yi foofu lañ koy jële ci la ñuy composé lim biñ soxla mu toll ci 450 personnes yoo xamante ne nii dañ leen di tasaare section bu ci nekk lim ci war a indi ci ay góor ak i jigéen kenn ku ci ne itam danañ la orienté ci su commission ba nga jëm moo xam restauration la wala hébergement wala intendance wala sécurité noonu lañ leen di partagé ba kenn ku ci nekk lañ lay defloo incha allah. da nga ko def ci defin wu sell woo xamante nii bala ngay ñëw dana fekk nga xam ni nga war a def lépp. ni ngeen ni ngeen di tasaaroowee ci ay bërëb yu fasantikoo ci lan lan ban mooy de communication ngeen di am bay jokkoo ba liggéey bi di mën a jaar yoon. waaw moyen de communication bi de moom mooy mooy mooy téléphone rek waaye nag day fekk nu doon jaxasoo lu ko jiitu ndax mbooloo mi mi ñu yor chaque semaine fu fi cellule de base dane danañ daje. semaine bu jot cellule de base ba fa mu nekk dana danañ daje ñoom ña ko séq bu dee commission yeleen yor semaine bu jot danañ daje bu dee comité directeur ba koy sayto saytu 45 jours yu ne dana dana daje bu fekkee section ba la 2 mois yu ne dana daje su fekkee secrétariat bi la 3 mois section la 3 mois yu ne dana daje su fekkente ne bureau fédéral la 3 mois yu ne dana daje kon mën noo ëmbante ab programme la boo xam ne dañ koy dund activité màggal boolewunu màggal lu fi jaar di jàll la mais ànd bi day day lu war loo xamante ne nii lislaam a ko santaane mooy si waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu loolu lañuy ñuy jéem a réaliser waxtu ci ne moo tax mbooloo mi ñu yor ñu leen di saytu ba pare gëm-gëm boobu itam ñu def ko ci seen bopp ci ne danoo war a ànd ak lu mën a xew danoo war a ànd danoo war a mel ni aw yaram yaram nag duñ tàggali ko benn cër mënu cee naw boppam ba tàggali ko ak yeneen cër yi ci des parce que cër bu ci naw boppam ba demit fam jëm moom du fa am njariñ te fi mu jóge ab légat la fi bàyyi rek waxtu ci nekk communication bi lu yomb lay doon ndax li ñu leen di wax fekk nañu xamoon ko laatu ñuy ñëw man la asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Ibrahima Gningue secrétaire administratif du comité d'organisation du Grand Magal présenté li fa njëkkee sax bala ma tàmbali nga baal ma nga may ma rendre hommage suñ benn collègue bi ñu fi nekk lool muy Babacar Ndiaye mu dëddu jamono yi weesu doon ku baax bëggoon liggéey fonk ñoo bokk yoon nekk fi yàlla def mu jiitu ñoo ngi ñaanal fa mu nekk gënal ko fii fop te sëñ Tuubaa fay ko lu gën di ngeen di wax ci turu sunu secrétaire général monsieur Abdou Mbacké moom mi nga xam ne mooy secrétaire général comité bi secrétaire général euh, liggéey bi nga xam ne moom la def te li ñuy def lépp ci ndigal lañ koy def fu mu ne ñu ngi ci confection badge yi mais li ko jiitu maanaam euh, ci wàllu administratif mooy lépp loo xam ne dafa jëm ci commission yi wàllu rédaction lettres yi ñun ñoo koy def li jëm ci administration courier bi ñun la ak li nga xam ne man tamit moo jëm ci eh, barge presse yi tamit ñoo koy def kon donc euh, wàllu liggéey bi mooy lépp loo xam ne rek ci administration la te mu lié au comité ñun ñi nga xam ne ñoo nekk au secrétaire général ma ñoo ko yoree actuellement te li ñu war a liggéey ci xayma war naa tollu ci 2500 badge bi ñu ko defaree ba noppi nag dana am liggéey boo xam ne nag moo ci topp mooy suivi bi suñu paree danañ dajale liggéey boobu yëpp def ko ci benn kayit tënk ko euh, dajale tamit commission yi nga xam ne dañoo defoon ay budget ngir war koo liggéey budget yëpp dañ koy dajale tënk ko def ko benn un rapport def ko benn rapport général daal di ko présenté ki nga xam ne mooy président comité bi muy Cheikh Bass Abdou Khadre ah, fii ñu toll nag ñoo ngi sant xanaa li ci nekk rek mooy lu baax du doy jàmm dëpp te mbiru sëñ bi saa su nekk day day yokk te mbir suy màgg da ngay màgg ànd ak moom kon euh, mooy nu mu gën a doolee ko gën a baax waaye macha allah liggéey baa ngi dox te wax dëgg yàlla amoon ci benn gàllankoor. daaw fi ñu toll sax tolluñ fi woon ndax daaw heure bi fekkoon na ñu toll ci wàllu conception mais yàlla def na incha allah ren ñu ngi commencé liggéey di tiire budget yi am na nu sam en avance vraiment su le travail. gi moom bu jubee ay weer lu tolloog ay weer lañ koy tàmbali di liggéey lu si jëm ndax euh, dañuy waajal ay waxtaan yoo xam ne. yenn télé yeeg yenn rajo yi ñoo koy faral di jël ñuy faral di jël benn mihwar benn thème boo xam dañ koy tasaare euh, ren ñu jëloon mm, process euh, bi nga xam ne ku ne xam ne sëñ bi ci wàllu xam-xam la woote ci la it euh, ñu jël wàllu xam-xam ni mu amee njëriñ ak ni mu amee solo ci dundinu àdduna ak dundinu doxalin àdduna moom la ñu jëloon ren des ay thèmes yu bari yoo xam ne séddal nañ ko ay télévision yu bari bañ jàllale ko. Euh, ginnaaw loolu euh, am na penc yu ñu fay def yoo xam ne dañoo baaxoo su magal gi jege ñi nga xam ne dañoo ànd ak sëñ bi di euh, nekk ay mbokkam wala ay taalibe ñu def fa ay ndaje tànn ab ab waxtaan woo xam ne day dëppoo ak jëmb jooja la méngoo loon ci liggéeyub sëñ bi at yii yëpp dañ ko tàmbali woon ren ñu tànnoon sëñ Cheikh Absa ak ci Ibrahima Sall Njaañ Ibrahima Sall Njaañ noonu lañ koy defee loolu def nañ ko ba noppi ba mm, sant nañ suñu borom baax a baax léegi li nga xam ne tamit fi ni fi leen toll nii ci laaj bi nga laaj mooy di waajal conférence bi nga xam ne moom niñ ko baaxoo di amee mooy am si guddi màggal gi ak bisu màggal gi ci bëccëg bi ndax chaque année moom it dañuy tànn benn thème boo xam ne bu dee ci wàllu suba gi la moom dañuy tànn ay mbooloo association islamique yi wala ay kër diine yi ñu indi thème boo xam ne dañ ciy waxtaanee loo xam ne njëriñu réew mi lay doon ku ne sa xalaat nga xam ne dinañ ci day nekk delluwaay wala sukkandikaay wala loo xam ne dina amal njëriñ euh, ñuy déglu ngir am lañ doxal wala ñuy déglu ngir am luñ mën a euh, bind wala wala daal loo xam daal day doxal réew mi ren ñu tànnoon thème boobu nga xam ne mooy war am ci guddi bis màggal gi suba gi jàmmi réew mi maanaam jàmm euh, asalaamu yi maanaam jàmmi jàmm ñu amee njëriñ ci ci société bi ni ñu ko war a euh, conserver ni ñu ko war a jëmbale ak ni ñu ko war a jëriñal ren moo leen tànn tànn si ay kilifa yu bëri yoo xam ne yu fasantikoo lañ waa Omarien waa euh, daayira investisseurs yi ak waa association islamique yi ñoom leen tànn ay borom xam-xam ak ay professeurs yoo xam ne du ñëwee mu nekk ab débat boo xam dañ ci essentiellement mu nekk njariñ ci bisu màggal gi ci suba gi. ba dee si guddi gi moom niñ ko baaxoo defee moom it chaque année dañuy tànn loo xam ne dañ naan Serigne tubaa ak nangam masalan Serigne tubaa ak alquran Serigne Touba ak sunna Serigne Touba ak nangam nga xam ne depuis 2001 ba léegi noonu la ñu koy defee moom it ren ñu ngi tànn tukki euh, Serigne bi. Euh, bi mu ñibbisee euh, ku ne xam ne bi mu ñibbisee 1902 nekk na fi ab diir demaat tukki ci Mauritanie muy tukki jéeri ji ni ñu koy wooyee ren moom lañ tànn ngir waxtaan ak moom it asbaab yi si nekkoon maanaam sabab yi yee nekk ak ak xew-xew yee ci am ñu waxtaan ak moom ci guddi màggal gi muy loo xam moom it ñaar dañ koy bind def ko ci ay langue di ko séddale gan ñi nga xam ñooy faral di ñëw te ñoom euh, dañuy demaat yóbbaale ko euh, loolu daal moom waaw moom moom moom waxtaan yi moom euh, fi ñu ko baaxoo defee rek incha allah mën ko defee ren mu ci fii ci kër Serigne Touba ci en face ak jumaa ji mooy fi ñuy wax résidence Khadim Rassoul fii fi ñu baaxoo defee euh, cérémonie officielle bi nga xam ne gan ñii kilifa yi doon wax léegi ñoom ñëpp dañ cay teew euh, mu ñor leen lool ndax Serigne Saliou bi mu koy diglee muy mu bëggoon ñuy boole waale liggéey bi ci gan ñooñu ndax dafa xam ne Serigne bi gan ñëpp lay am dafa am ñoo xam ne xam-xam kese kese moo leen ñor kon moo tax ñuy tànn ay thèmes yu am solo yoo xam dañuy essentiel si ci xam-xam nga xam ne ñoom bu ñu ñëwee bokk gi ñu bokk ci waxtaan woowu rek moom dañuy jàpp ne ñoom mooy seen ndax day day nekk occasion boo xam ne ñoom dañuy wax ne sax amut feneen ci àdduna fu dul fi biir Sénégal fu dul Touba ni ñuy gisante seen biir ni ñuy essentiel seen biir en tant que doomi soxla yëpp ni ñu dajee loolu day nekk lu am am solo si ñoom loo xam dañ ko yëg ba loola moom dañ koo dañ ko fonk loolu ba nga xam ne waxtu wi euh, dañ ci li muy métti métti nag ak coono yi dañu ciy toog ba fajar ba julli fajar te duñu sonn duñu joxat ndax euh, xam-xam bu leen ñor ak bëgg euh, li nga xam ne moom la ñuy def ndax berne dafa am berne ak berne xéewal yi comme ni ko suñu mbokk yi jiitu waxee waaye ñoom nag berne roue gi mooy wàllu xam bi dafa leen a yitteel ba nga xam ne moo tax ba moom it at mu jot dañuy góorgóorlu ba indi thème boo xam ne suñ ko indee rek ñoom ñëpp dañ ci gën a bigaat gën a euh, euh, yéemuwaat Sëriñ Tuubaa ndax depuis 2001 ba léegi waxtaan wu ñu waxtaan mosuñ koo répété mosuñ koo def takraar daal te Sëriñ Tuubaa ak nangam la ñuy waxtaane te mosuñ coo am benn euh, bu ñu wax waxaat ko te yaakaar naa xaaju gu texte bi ñu seetlu ko gan ñi ak waa dëkk bi noonu noonu lañ koy liggéeyee. dox comme niñ daa doxee rek ndax yaa ngi ko tàmbalee ci commission bu ne intervenir nga ko mu wax la ne ak Euh, ab commission mi ngi dox ni mu war a doxee te loolu balaa dox rek buñ ko financé wut du man kon nam daa doxe rek mi ngi koy doxee ba nga ni dafa yokk waaye wàññeekuwut waaw lépp li ñu war a li ñu war a financé lépp jot nañ ko ñu ngi koy financé niñ ko niñ ko daa financé comme comme d'habitude rek dara manqué wut ndax yëfi Sëñ Tuubaa moom day jëm kanam waaye du dellu ginnaaw ñu ko daa defee at yi weesu rek ren dafa gën a yokk waaw comme ni ko sëñ ki ko ki ko di ko def rek moo ko gàllawaat di ko def comme ni mu ko daa defee comme ni commission yi yëpp rek li ñu la wax rek ni ni seen commission di doxee rek comme noonu noonu rek la lépp lépp di doxee noonu at mu ne day yokk ndax màggal moom berne la rek ku ne xam ne berne at mu ne day gën di jëm di jëm kanam ñiy ñëw dañuy gën di yokk la ñuy def dañ koy yokk at mu ne nga siifu amul solo mooy li am solo mooy li tax ñuy eh, sëñ Tuubaa dafa sant lu dafa ne nañ nañ nañ nañ ko sant la yàlla di sant yàlla nag la ca jiitu mooy bernde te bernde yi jëru di tudd chiffre nañ fexe ba niñ ko bëggee ñu defee ko noonu te yaakaar naa màggal yi fi jàll yëpp ku ne xam na ne amut lenn wàllu berne luy manqué day ëpp ba loolu yoonu murit loolu lañ xam lu ñuy def lu ne day day day day day day doy ba sëkk ba ba ëpp. murit moom dañ koy yar ba lu luñ ko jox lu ne dana ko def comme nañ ko bëggee ndax yar moom bu jiitoo ci mbir rek loo yor da nga ko yor danga ko seere na nga ko war a seere te attroupement du am ñun nag sëñ Bas mooy euh, moo jiite màggal gi. li ñuy jëflante rek moom la koy jëflante lu ñuy joxit moo ñu koy jox ñun daal sëñ bés li ñuy jëflanteel moo ñuy jox mooy xam na mii def ba dekkee sa ñu jox ñun daal en tout cas luñ soxla wax ko ko dana koy eh, yëwanal teg ko ci suñu loxo ñu ñu jox ko ñu ko war a jox commission ñetti nit sëñ Lamine moo ko jiite sëñ Saliou Mbacke man mii di wax ak yéen waaw ñun ñetti ñoon ñoo ko kii moom amuñu benn gàllankoor ñu ngi doxal comme niñ ko war a doxee ndax eh, waxtu wuñ soxla xaalis bi rek danañ ko jot bu but si ñëwee bañ càmbar ko ba war a koo financé rek sëñ bas moom dana ko joxee ca sansa dara du du takk looloo duñ ko di def ndax yëfi sëñ tubaa dafa war di yokk loolu duñ ko def yëfi sëñ tubaa moom luy yokk saa su ne wuroo di wàññi di wàññi bu ñëwee buñ ko xoolee xam ne lu li jëm ci ci ci ci màggal gi la rek dañ koy financé mu waaye wàññi duñ ko def ñun duñ wàññi dañuy yokk waaye duñ wàññi sant sëñ tubaa bu baax a baax di ñaan mun taxa yàlla yàggal ko fi te wéral ko di ñaan it ñu teewee ko ay déwéni déwén